min alsheytaani laani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñi nga xam ñoo baaxoo sunu kër gi Sunugal 24 di fi topp seen naafila bés bi nuyu ziar ñi nga xam ñooy topp suñu nasiha yeeg yëpp macha allahu di wax ne ramadan bi léegi mu jeex incha allahu ñu bokk rek muñ te xam ne incha allahu weeru xéewal la bu xam ne buy dem ku xam ku nekk da ngay am lu la metti waaye nag ku xamul topp ceeb bi dangay jàpp ni mbégte la dem ngi fekk du loola ndeysaan xaasi <laughs> mahfuus jàppal loola aywa ñoo suñu vingt cinquième nuit muy ñaar fukkeelu guddi ak juróom twenty five twenty five dégg nga lan nga am foofa yaa ngi am sa naafila euh, huit rakka huit soo xamul huit moo nekk eight eight maanaam juróom-ñetti rakka moom nga am sa vingt-cinquième nuit lan nga ciy jàng yaa ngi jàng benn rakk bu nekk faatixa benn yoon suuratul ixlaas cinq fois lan mooy suuratul ixlaas muy qul huwa allahu ba mu jeex cinq fois nan nga koy jullee mooy soo defee ñaari rakka deux rakka da ngay taaye sëlmal heure boo defee deux ràkka rek taayal nga sëlmal ba mu mat six ràkka ñetti sëlmal lii moo nekkoon suñu naafila bés bi incha allahu taala ñu dem suñu nasiha bés bi mbokki nasiha bi nag mi ngi jëm ci li ñu dëkkmal muy wàllum euh, laylatul qadr laylatul qadr borom subhaanahu wa waxul mu ni inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri ndeysaan nee na bés a ngi nii bu xam ne walla guddi ngi nii bu xam ne man maa ci wàcc alquran waaye guddi la bu xam ne ku xamoon li ci nekk ci njariñ dina la jaral nga bàyyi lépp àdduna ngir dëgmal guddi googa parce que mooy benn guddi bu xam ne quatre vingt yu nit ki jaamu yàlla moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole moo ko ëpp yiw léegi nag mbokk ku xam lii ku nekk war nga fexe 10 jours yu mujj yi ñoo ngi lay dénk nga fexe loo ci mën ci jaamu yàlla loo ci mën ci dundal ko def ko rawat na ba si tool yi jaalana allahu min allasi yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu